jërë ngeen jëf ami téléspectateur u people 221 yi ñuy suivre ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax di leen ndokkeel ci weer wi ñu génn muy weeru gàmm di ñaan yàlla sunu borom lépp luñ fa ñaan yàlla na ko sunu borom ful mu doon ay ngëneel tasaare ko ci réew mii di Sénégal ak ci bitim réew ak fépp fu nit nekk rek ñu ngi lay souhaité ci weer wi ñu génn euh, mu di weeru gàmmu euh, tey nag ñu am mbégte ci dalal sunu maman euh, vraiment kenn dootu ko présenté ci réew mi ak ci bitim réew ñu am contentement ci daral ko fii suñu kër gi di people 221 fas yéene moom waxtaan maman dañ lay bàyyi nga nuyoo ñu lay siiwal. maa ngi nuyu euh, euh, people mm-hmm. di nuyu tous les internautes euh, de cet organe en ligne. Mm-hmm. waaw di nuyu Sénégal yëpp. Mm-hmm. ak sénégalais de la diaspora. mais maman da nga yaañu tey. pourtant de dama oyofal gi rek. <laughs> <laughs> damaa oyofal rek. macha allah temps yi dama xaw a déconnecté. waaw mhm. macha allah li rafet na trop. merci euh, fi ñu njëkkee ci waxtaan ni maman mooy euh, maman ku ko xam-xam ni maman ak xale yi euh, maman mën nañu xam naka ngay dundee ak xale yi. bon c'est tout à fait naturel hein. on a déjà fait la pédiatrie. Mm -hmm. à Albert Royer si suñu mm -hmm. formation médicale. Mhm. xam nga temps yi la amoon na benn coow ñu doon ne médecin la wala du médecin. Mhm. ku mun na def. dëgg la de <laughs> <laughs> ne nañ kex kex ma dee. Mhm. ku mun na def médecin da ngay am yërmande. dëgg bi ñuy former Albert Waye ndeysaan. Mhm. dañu doon def parfois deux gardes. 48 mhm. heures. te duñu nelaw. donc euh, ñoom madame Mbaye. ak madame Thiam. léegi ay professeur lañu ndeysaan mhm. ñoom ñoo assuré suñu formation pédiatrie mhm. donc euh, il y a plus de vingt ans li may mhm. wax nii kon xale yi au fait dafa ñëw naturellement en j'avais une garderie au 15 rue de Front de Terre ak 582 HLM La Solmas bii nag moom 2022 benn moo ñëw confié wu ne dañ bëggoon nag léegi comme que mënul yàq biir bi. Mm-hmm. da koy téye. Mm-hmm. mais su accouché daf ma koy dénk. Mm-hmm. su est-ce que su ma amee kenn su ma amul kenn sama dénk ko ma nekk mun naa ko yore tout est de là. d'accord waaw ma hébergé ko. mu accouché. après mu jox ma xale bi. donc euh, l'appétit venant en mangeant. c'est un autre terme que je devais utiliser. ñu toppatoo xale bi. Mhm. mu am téléphone bi sonné. Mhm. Macky ñëw. Macky Sall. waaw pas le président mais téléphone bi yaayu Macky Sall woote kii ma tuddee Macky Sall. d'accord mu ne kaay jël madame Julie après ah, ma def sama spot. jigéen bu am problème surtout ñi nga xam ne seen euh, ñi leen tooñ dañuy daw. Mhm. moom la ñuy wax refus de paternité. Mhm. te ngeen jaaxle seen famille rejeté leen boole si. Mhm. wala ngeen làkkatu bu ko si seen famille xam que da ngeen ëmb. Mhm. ñëw leen ñu gunge leen. d'accord kon kon ci am ay cas yoo xam ne nit ñi dañuy ñëw. naan dañ dañ may dañ may tooñ. dañ may loolu rek moo am. xam nga les gens ne comprenaient pas. au départ dañ fa woon man maa jur xale bi. premier xale bi. juruma ko sama biir mais maa ko jur. c'est la même chose parce que yar depuis le képp ko ma yar dès le premier jour maa la jur mhm. waaw mhm. ndax guddi may changé couche maay sang maay maay maay maay solal maay nàmpal kon maa la jur ñoom ñëpp maa leen jur loolu loolu doy na ñëpp maa leen jur ndax ñoom ñëpp premier jour laa tàmbalee changé couche sang lim leen defaral sax dafa loon may ko sama Sara sama Moïse avec tes moyens mais avec mes moyens ma coûte je suis pauvre heureusement aw ma charge locative maa moom kër gi li ma tabax maa ko moom. maa sa loxo ngi soos ah. du dëgg. Mhm. kon fi ngeen ñëw tey. Mhm. maa ko moom. Mhm. à partir deuxième étage jëm kaw maa ko moom. su ko defee àbbuma kër kenn. pour dugal samay doom. sama kër laa leen dugal kon quel problème y' a aucun problème sant yàlla bi mu munee fii mun naa fa dugal 200 bébé. man affaire bi man sax daf ma dépassé waaw daf ma jaaxal. genre dañuy dañuy ñëw jox la doom yi dem après wala seen i parents dañuy ñëw. di nemmeeku seen doom y' a plusieurs mhm. am ñoo xam ne. Mhm. dañuy jur jox ma doom dem. wane ginnaaw totalement. d' accord am ñoo xam ne dañuy joxe di ñëw di seet si. Mhm. am ñoo xam ne pare guñu sax pour ñëw seet si. xale yi daal dinañ leen toppatoo bu baax. dinañ leen ngénte comme ni leen war a ngénte. maa ngi woon si bi ma tuddee Macky mhm. la réaction des internautes mhm. ñemewuñu commentaire mhm. am na ñoo xam ne bon rafetlu nañu wax ji tudde bi ma tudd Sonko même réaction ñemewuñu commentaire Barthélémy bi ma ko tuddee nag sabar ba tas ak euh, maam a faam ñaari gaynde ñoom dañoo commentaire ba dugg boîte vocale parce que ñoom ñoom ñaar ñi ko tuddee seen personnalité la <laughs> ñu dañoo commentaire kontaan ba boîte vocale ndeysaan mais Bart yëg na loolu ah dafa voyagé waaw waaw mhm. assistant tam Sénégal yëpp moo ñëw yëg mhm. ñi ma tuddee mhm. ñëpp a yëg ñu ma tuddee comprendre mais ndaanaan moo tuddee dëgg la waaw fii quoi social amu fi. Mm-hmm. ndaanaan moo tuddee ñu toppatoo xale yi. Mm-hmm. tuddee wuñu pour xaalis de. Mm-hmm. ku toppatoo baax na ku topp ku participer wul baax na. ñun en tout cas yàgg nañu di toppatoo ay animateurs a gisaane. temps bi ma ak coono bi ma deg si ñoom. léegi si xale yi laa koy laa koy. jagleel dëgg la dëgg la parce que yàgg nga fi kere yàgg nga fi. yàgg naa fi di di héberger. yàgg naa fi di dundal. léegi xale yi laa ñoo ko moom. dëgg la xale yi xam nga duñ ma wor. Mhm. waaw ndax suñu magee ñooy toppatoo rajo yi. Mhm. suñu magee ñooy toppatoo projet yi. Mhm. ndax fii la ñuy toog ba mag. après am seen liggéey. waaw moo gën xale yi nga xam ne di ngay jël ay nouveau recul la ñu lay ñu lay sonal. Ah, di lay jéem a jàq sa der pour am promo. parce que ñuy yàq der parfois promo am promo moo leen siy tax a jóg. pour ñu xam leen. donc euh, samay liir yi duñ ma wor. damay ñëw ci wàllu politique bi maa ngi woon ci candidature 2024 bi fan yii passé am ay coow yoo xam ni jugoon na ci kaw aji aji caane ak Californie il paraît que coow loolu déggoon nga rumeur mhm. ban jàngat nga am ci loolu ah. mais mais mais nag du ñàkk parce que tamit cadre kee góor la kii jigéen la ku jigéen kaa ngi naan daf maa dóor daf maa violé. xam nga damay gérer xale yi ñu violé. Mhm. seen doom yi maa ngi leen di gérer si kër gi. Mhm. ñi nga xam ne dafa am refus de paternité maa ngi leen di gérer. Mhm. donc euh, s'il y a viol. Mm -hmm. la loi est là pour punir les violeurs. Mm -hmm. s'il y Mm-hmm. S'il y a coup et blessure pour le cas de Kaliphone, mm-hmm. comme je l'ai dit dans un euh, c'est beneen interview. Mm-hmm. su génnee je vais lui tirer les oreilles. parce que jigéen kenn du ko dóor. mais ñu bëgg see xëy di bëgg see gont. di si xëy di si gont. di si xëy di si gont. moom moo tax ma ne ah ma dossier boobu daal. moo tax dégg ñu ne wax ci benn yoon voilà voilà. c'est un fait divers. mu am nag coow loo xam ne tamit ba tey ci politique la xew na entre démb ak barki muy Cheikh Bara nekkoon xaritu Sonko am audio yoo xam ni gars yi dañ ko partagé ñi naan affaire yi ay coup la ñi naan ay piège la ñi naan dañ doon bu boobu Sonko gëmuñu ko en tant que politicien naka nga ko jàngee. sama yoon ne aussi c'est eux dans eux. Mhm. dañoo xaritoo. Mhm. c'est eux dans eux. fii de mhm. Sénégal moom xarit yi d'habitude dañuy jëw. yaa xarit et xarit. ñoo xam ne nag dañuy utiliser benn tour pour am buzz maanaam soo koy jàppale da ngay am buzz soo koy xeex da am buzz. loolu la ñu mhm. bëri découvrir mhm. sooy xeex mhm. Sonko. da ngay am buzz. sooy jàppale Sonko da am buzz. yàlla moo ko ko may. parce que dafa occupé benn espace vide. boo xam ne dafa vide depuis que Idrissa Seck noppi. donc euh, te moom day attaqué. xale yi mujjee ko fan. force est de reconnaître mhm. que dafa benn aura mhm. biñ ko génnee ci législative yi dem na campagne mhm. gis nga résultat yi donc c'est un c'est une réalité qui la là hein c'est une réalité politique qui est et cetera maintenant Cheikh Bara jiw na wala jiwul sama yoon aussi voilà mais mais ñu bari nag di xaw am Euh, euh, li Sonko naan layam-layam yi ci candidature Sonko 2024 comme Macky euh, baal na ki nga xam ne mooy Karim Wade ak Khalifa Sall mu des Sonko am nga yaakaar yow en tant que candidature 2024 Ousmane Sonko dinañ ko légaliser. Sonko su amulee équipe de su amulee équipe d' avocat. Mhm. gars yi nañ ko ko def de. Sonko waaw. Ah? faut qu'il une équipe d' avocats qui le qui le défend mhm. fii ko fi naagu rek daagu. Mhm. wax naa ko si benn interview gars yi ne Ndella Madior dit que Sonko ne va ne sera pas candidat j'ai jamais dit ça. Mhm. Sénégal journaliste yi dañ lay utalee noonu. dëgg la waaw jamais dit ça. Mhm. j'ai dit tout simplement su naagoo daagu. Mhm. donc euh, gars yaa ngi koy pare woo. ñu ngi pare woo. donc il faut avoir une euh, bonne défense. il a parlé d'anticorps non. voilà. mais mais naka nga jàngatee politique Sénégal actuellement parce que yaakaar naa am na yeneen détails comme yow li ngay def nii yaa ngi yaa ngi créer entreprise personnel di dimbali ay xale yaakaar naa tey Sénégal toll nañ foo xam ne am na yeneen yu gënoon a ñor que nekk fii di détail ci ay audio parce que yaakaar naa comme yow tey li ngay def. Euh, moo gën a am solo moo gën a Sénégal euh, télé yëpp war na xëy ñëw def documentaire jàllale ko France 24. jàllale ko ci àdduna mais pourquoi tey politique Sénégal ñuy bëgg xëy chaque jour rek ay audio. man damay jékki-jékki rek xool Ndella Madior néew ma taxaw fee. commencé yàq taxaw commencé yàq def ay saaga suba suba ñu recevoir ma wax naka nga jàngatee politique bu salte boobu. te am ñu gën a priorité dëkk yaa ngi taa ceeb bi. diwlin bi c'est la presse qui doit choisir ah. bi moo sax oh, moo moo warul nangu ñu koy manipuler. Mm-hmm. parce que da ngay jékki nit ñëw si yow ne diw diw diw. Ah, nga tànd ko micro tasaare ko si àddina bi. Mm-hmm. Ah, donc c'est de l'irresponsabilité. y a des des ki qui mmh. méritent d'être mhm. comme le fait que ma jël engagement di toppatoo ay doom mhm. ay xale ñu dëkk sama kër mhm. fanaan sama néeg <laughs> waaye maay jàmbaar waay fanaan sama néeg ma yaatal leen si trois niveaux fii benn niveau rek quatre cent mille francs nga ko war a fay par mois donc j'ai pris trois niveaux ça fait un million deux cent par mois aw ma fi benn locataire Mm-hmm. et j'héberge mes, mes, mes, mes, bébés. ah et puis je, je m'occupe correctement de mes bébés loolu la ñu a promouvoir. Mm-hmm. ak yeneen jëf. war a am entraide ak solidarité. pour ñu xam ne li ñu li ñu doon nëbb si si mbedd bi si poubelle yi si ay fosse gas suul léegi soo koy waagee dafa ne yow dama seete Ndella Madior xanaa xam loo Ndella Madior mën na la si jàppale léegi téléphone su ne kër sonné rek mu ne la dafa maa ëmbal daw dafa maa ëmbal daw rek ngay dégg. dafa mhm. maa ëmbal daw. kon léegi maa ngi liggéey liggéeyu maa ngi jàppale sapeur pompier yi nga xam ne kenn woowutu leen ne leen am na bébé bu ñu sànni fii si quartier bi. Mhm. Hmm? dina egg benn stade boo xam ne nit ki su amee SOS. Mhm. enfant donc euh, en détresse. qu'on appelle SOS Santé bu Ndella Madior Diouf mm-hmm. qui a les qui gère les Kër Yërmande mm-hmm. ah mu nekk lu lu am solo mm-hmm. lii moo jot a promouvoir mais soo koy def da ngeen ne da ngaa dof waa kii fan lay jëlee moyen yi waa fii xam xanaa du du meew xanaa du ndox ak couche xaalis day jàpp da nga koy lijjante rek surtout te te foofu am na ñu bari parce man am na ma jot a expliquer que mooy ki nga xamante ni maanaam dafa nekk en nga koy jël héberger ko sa kër parce que man bi ñu doog a début dama yaakaaroon xale bi moom day judd rek yow nga dem jël ko. Mhm. non am na cas yoo xam ne dañuy am problème yaay yi ñëw dëkk sam kër waaw Dakar ak si région yi. te yaa leen yor. maa leen yor waa na ñëw dëkk sam kër déjà ñoo leen jël en charge su ñu ñëwee deux jours lañ fi def rek seen kanam soppeeku stress bi ngay indaale. Mhm. léppay dañ parce que da se sent en sécurité. Mhm. Euh, ñun sax dañuy kontaan si kanam bi ñuy gis. parce que mm. kii ñëw bu ngay ñëw ni ngay jaaxlee bay jooy. Mm-hmm. ak ni ngay fire bay waxtaan di reetaan. Mm-hmm. Mm-hmm. parce que tu es en sécurité ici à la maison loolu loolu rek déjà euh, dañ si kontaan daal. d'accord dañ siy kontaan. et après xale bi day ñëw. non sans problème. ñu ñu ñu ñu ñu ñu toppatoo ko. d'accord fi may jeexalee foofu ci cadre euh, euh, Fatmata Ndiaye Fouta Tampi. mu nekk sa nawla di jigéen fan yii ñu gis mu am ay coow mook ay mook ay doomam mook doomam ku ne di wilipaane sa morom a euh, tant yaay ak doom naka nga jàngatee loolu. sama xarit la. Mhm. dañuy wootante téléphone. Mhm. ma koy conseillé ndeysaan. Mhm. ñu waxtaan reetaan ba ba stressam dañ. voilà euh, doomam dafa réer rek. dina ñëwaat. doomam dafa réer te ñi ko yore woon. Mhm. dañu waroon créer rapprochement entre moom ak euh, Fatou. Mhm. Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi. Mhm. waaw presse bi kay ak yi tamit di ko jox micro. muy wax mineur la daal. Ah, donc euh, waroon nañu moytu def loolu ku su nekk da ngay ne su nekkoon man est-ce que lii dinaa ko dina ma neex. voilà donc euh, c'est triste de voir ce déchirement familial. et l'enfant apparemment n'a pas. n'a pas encore bien compris mais je pense que dina dal. Mhm. dafa réer. Mhm. parce que man parfois démb xaw barki démb tombé naa si vidéo yoo xam ne mi ngi ne nit yaa ngi koy wax. pour mhm. mu baalu ak yaayam. si hmm, li ngi jëm. parce que nit la quoi. elle est de chair et d'os. donc sensible donc dina egg ba benn stade boo xam ne dina xam ne lu mu nekk kenn du xeex sa yaay. quel que soit le comportement de ta et sa mère n'a pas un comportement. terrible ah c'est une mm-hmm. femme sénégalaise qui se bat à sa manière mm-hmm. donc yaay euh, doomam waru ko attaqué mm-hmm. waaw doomam waru ko attaqué ku nekk am nga fii doom boo xam ne mën na la créer sa problème mais da nga koy muñ gérer ko bii nag mooy bu rëcc nga xam ne presse bi ñi seen yoon nekk ak ñu si yoon ñu nekkul yëpp dugg si ah, affaire dafa daw yaram sax ñoom seen doom suñu leen defoon nooy su dina leen neex loolu mooy fumisterie rambaaj waaw y' a beaucoup de fumisterie ak rambaaj. Mhm. dans l'entourage euh, mhm. de la fille de Fatoumata Tampi. Mhm. waxuñu ko dëgg quoi. mais est-ce que tamit ñu bari tamit ñu ngi doon wax naan Fouta Tampi li mu doon wax ay bàyyi jàmbur ak li doon saaga ay nit ak di wax ci ay jàmbur moom la ko yàlla fayee ci doomam est-ce que tamit en tant que xaritam jotul mu. non c'était une histoire ancienne bu mujjee feeñ après ay noonam exploité ko. voilà yi ko exploité suñ ko defoon seen doom du leen neex. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. dossier boobu daal vraiment. presse bi moo ko yaatal. opposition bi ak presse bi ñoo ko yaatal. waaw daf ko événement nag. te jaru ko woon daal. au contraire dañu war a yedd. doom ji. pour mu dal. kenn du attaqué sa yaay. jàkkaarloog sa yaay di di defanteeg moom. <laughs> ku ko def ku ko def da ngay am problème. dëgg la yaay yaay. su doon naan sàngara sa danga koy suturaal. dëgg la dëgg la dëgg la. yaay. Mm-hmm, mm-hmm. su doon naan sàngara sa te loolu la islam wax. dëgg la soo fekkee sa yaay muy naan sàngara. Mm-hmm. da koy jënd sàngara jox ko mu naan. dëgg la. am déet. doo ko euh, doo ko weeje dëgg la fi may daanaka ñu ngi may signaler li ñu ci ay waxtu léegi mu jeex euh, tey euh, ban message ngay lancé autorité yi ak tey ku bëgg a def lu jëm ci wàllu soutien. Euh, mooy xale yi nga xam ne yaa ngi leen sama numéro téléphone c'est le 77. 612 mhm. mhm. xale yi jàppale leen obligation la Sénégal. Mhm. ndax xale yi suñu xale yi ñun ñëpp la. seen bàyyi daw. refus de paternité yi foog ñu régler problème boobu Sénégal moo ju mooy ni lii. dégg nga wax ji. donc euh, sama doom lañu doomu Sénégal yi ñëpp la. ndax seen yaay dañoo jaaxle rek. ma jàpp si. Mm-hmm. ni ma si jàppee noonu la si ñëpp. Mm-hmm. war a jàpp. Mm-hmm. parce que dañuy yokk. ba àddina di tukki refus refus de paternité day am. ba àddina tukki. mais ça doit se régler ça doit s'arranger maintenant. dëkk yu mel ni États-Unis jigéen su ëmbee. dañ koy toppatoo mooy programme Obamacare. dañ lay jàppale si lépp. si aliment pour nga jul ay des enfants de qualité. Ah? Sénégal. à travers Kër Yërmande. Mhm. dinaa si waxtaan président Macky Sall. pour mhm. que ñu def benn programme. Mhm. boo xam ne jàppale bépp femme enceinte. nga nga nga nga nga am jafe-jafe ñàkk am jafe-jafe. état bi da war a jàppale. parce que day yokk jigéenu warul. bu ëmb day yokk askanu Sénégal. comme que day yokk askanu Sénégal ñun dañ war dañ si war a jàpp. pour ñu bañ a xiif. dañ si war a jàpp. pour ñu toppatoo leen seen programme vaccinal. Mhm. dañ si war a jàpp ñuy màgg. Mhm. di màgg. Mhm. en étant de bons sénégalais. kon na si ñëpp jàpp. dëgg la ñëpp nag laay tuddee doom. artistes yi. homme politique yi. léegi ñu koy commencé comprendre. au départ comprendre ñu woon. lu nekk di di jottali ma lu nekk. donc euh, mais maintenant comprendre nañ que lii c'est un programme mmh. de lutte contre euh, l'infanticide l'avortement mmh. et les mm-hmm. refus de paternité mmh. et là l'accompagnement des nouveaux bébés mm-hmm. et des femmes enceintes mm-hmm. mu nekk benn programme bu lii yàlla moom la santaane l'entraide la solidarité et l'entraide yàlla da ko seet sant yàlla da ko santaane léegi man may na ma force force laa wax force toppatoo xale yi te dama si sonn mënoon naa ko dénk ay nunu dem sama yoon mais dama si bokk di former nu nuy mhm. di au départ man maay gérer. Mhm. su ñu demee ba commencé dëgër ma bàyyi ma bàyyi nu nuy gérer. et mhm. puis nu nuy defoor di yokku. puisque xale yi ñu ngi yokku. mu nekk lu lu am solo après c' est c' est très coûteux parce que euh, il faut euh, de choses. pour leur prise en charge. donc euh, jiitu naa leen si daal. léegi maa ngi xaar. ñëpp jàpp si. d'accord sa mot de la fin. voilà c'est ça le mot de la fin c'est que jiitu naa leen si nag. Mhm. waaw ndax xale yi moom téye naa leen. Mhm. Mhm. léegi li si des mooy na si ñëpp jàpp. na si ñëpp jàpp pour euh, Macky mag Macky nag moo si gën a fokkale. Macky Macky. laa <laughs> ilaahi Macky dafay nàmp nàmp nàmp nàmp ba biir bi gonfé mu tëdd nelaw su nelawee na moom du gêné kenn <laughs> ah euh, Sonko il est beaucoup plus calme. voilà. il est beaucoup plus calme. Mm-hmm. donc euh, Antoine dafa tuuti woon mais léegi jàmbaar la. Mm-hmm. donc su ko defee. maam Diarra Fam moom mi ngi commencé jàpp forme. Mm-hmm. ah euh, prince c' est le beau gosse. Mm-hmm. Ah, prince c' est le premier. Mm-hmm. mooy c' est le proie c' est le prince quoi. ah donc su ko defee Barthélémy Diaz. Euh, bëri na yaa quatre jours. donc mu ngi commencé jël moom tamit poids. di nàmp bu baax. donc y' a Fatou également mu ngi jël. Ah, c' est c' est c' est magnifique ah donc. Euh, Wally Seck ñoom ñëpp dina am tour euh, donc Ngaaka mhm. Blindé tout le monde. je vais donner ñoom Balla Gaye ñoom Balla Gaye wax nga dëgg fàtte woon naa Balla Gaye. Balla Gaye waaw fàtte woon naa Balla Gaye ak lutteurs yi. Mhm. ñoom ñëpp dinaa leen tuddee. Balla waaw Balla mhm. dafa war am tour. Balla ak Manga Dëgg ñoom ñëpp dañu war am tour. Balla Modou Lo Modou Lo ñoom ñëpp dañu war am tour waaw ñoom ñëpp. <laughs> mu ne. vraiment. ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp yam tuux. Euh, vraiment. voilà vraiment naa préparé rek benn salle à manger bu mag suñu commencé am un an bay toog. Mhm. donc il faudra une grande table à manger. Mhm. nga xam ne ñëpp a si nekk si biir quoi. dëgg la voilà. voilà on a commencé un projet maintenant fu muy du jeex quoi donc c'est magnifique. Mhm. donc il faudra beaucoup de voitures parce que quand on va se déplacer pour aller dans les à mm-hmm. donc benn oto du ñu si quoi. Mm-hmm. donc ça nécessite non de Dieu ça nécessite beaucoup de choses mm-hmm. voilà beaucoup de choses. mais bon euh, président de la République est tenu de de jàpp si projet bi ak euh, les différents ministères concernés. voilà kon maa ngi leen di gërëm di te di xaar euh, appui. pour les bébés. voilà. d'accord voilà gars comme ni ñu leen ko waxee. Euh, loolu nag nee na tungu na du teew ñuy nataal. senegal te euh, euh, Sénégal moom xamuñu ma maa fekk maa maa dégg. Mhm. maa fekkee wala maa gis lañu xam. Mhm. vraiment man maa ci teg sama bët. Mhm. man sax man li ngay wax yëpp man da man affaire yi émission bi daf ma dépassé parce man. ndeysaan sama benn turandoo yaay ma nekk suñu kër. ok faama mais man sax dafa ma dépassé fajar lay xëy. fëgg kër gi ñëpp yeew. ñëpp yeew man ma yore si 10. waaw nga yor ci 10 man loolu. vraiment Euh, doy na waar chaque mois dis chaque mois dix vraiment may lancer message pour autorité yi ak bon volontaires yi ñu ñëw jàppale ko xaarul kenn ci leen nag. te it sàkkul sàkkul ndimbal ketul. Mm-hmm. kenn. vraiment ñu ngi lancer message bon volontaire yi ñu ñëw jàpp ci. parce que euh, métti na méttiwul mais am na loo xamante ni yaakaar naa jërul xaar kenn parce que xale bi nga xam ne dafa ëmb damay dégg ñu ni ñaar yi moo gën a métti ci ci àdduna jigéen bu nekk en ak xale buy doog a juddu. couche moo tax ñu ni ku nekk en état bu amee doom boo koy seet jëndal conteneur couche yóbbaale ko. waaw kon vraiment ñu ngi woo bonne volontaire ñëw jàppale suñu yaay ji. Euh, li muy def am na solo trop. Euh, mm. vraiment dinañ gën a ñëwaat nag defaat beneen documentaire xoolaat xale yi naka la ñuy nekkee xale yi yuuxu yi biriw bi <laughs> euh, vraiment lool lépp dinañ ñëw seetaanaat ko incha allah. Uh-huh. ñu ngi leen di jox yeneen dig daje suñu yeneen émission. fii ci people 221 moment kontaan nañ.